yéen a kaay ak El Hadj Ahmed Aidara. bismillah. cay corona gi la ak tere yi nga xam ne kon koy tere ndaje yi tribune Sall li ngay def loolee ñoom duñ ca d'accord déedéet ndaxte imam ba day Mamadou Ibrahima Niass waaw nee na leew na ñeseen laa lay wax ni xam le na ne la ko amal ren de te ñu koy jaglelee maam a kaay yi nga xam ne maanaam nguur gi jël na ko ni la Antoine Diome ministre intérieur waaw daal di tere ndaje yi te ndaje yoo yee du tax nag église bi ci boppam mu ñu sukkandikoo ci évêque bu Ziguinchor Monseigneur Paul Bamba ne danañu màggal nag Noël bi ci église yi lée waa leew seen waaw nee nañu ñoom tam tere googe duñ ko nangu de bàyyi ji lée maam xalifa danañu ko màggal laa la wax tribune yéene kaa ne te gis nga ci fàttali day waaw màggal Tuubaa gi lée ci biir mbas mi lañ ko def gàmmug Medina Baay geeg Njaasaan baal aca na ba waaw mais ci biir mbas mi lañu ko def laaste en tout cas ñaari doomu aadama kon corona gi rey na leen ca maatam gële ndax sàggante goo xam ni kon nguur wul ca hôpital ba hôpitalu Ndakaaru yi li fi xew doona waar ubbil l'observateur ne ñu coronavirus yi day waaw gis nga Sowetaas réanimation waaw syndicat yi day lañ fa wax doy de aha maar de taali kay parce mbaalo ja caam waaw nee na urgentiste yi waaye mën nañ leen a compter ci baaraamu benn loxo laa la wax weesuwul juróom maar de taali anesthésiste bi nga xam ne moom lañ fa indi day étudiant la pareegul sa formation laa wax réanimation ko wax surtout en tout cas bilan ba day ma nga jëm kanam di nay inna lillahi wa inna ilayhi rajiun lu ci toll ak ñetti téeméer ak juróom fukk ci ay doomu aadama kon corona gi rayegum nañ leen ñaar fukk ak benn day da nga sowe taas laa ilaha illallah les seco yéen a kaane moo taxit artistes waaw daal leen tere nag ay way ak yu ni mel Dakar bàyyi naaj yi waaw looloo tax nag ba artistes day dañuy wàcc ci mbedd mi ñemewuñ ko maa ko wax parce lu tolloo fukk ak ñeent ci ay organisation culturelle ña woote ci alxamis gi la oto yooyee def ko ay taxi kalandoo dañuy bëgg a dee de te ku bëgg a dee weex ginnaaw corona googe critique yéene kaay nee na wàllu njàng meeg mi waaw waa SAEMS day ak waa CUSEMS e grève la ñu jëm de àllarba ji di ñëw waaw parce que yi nga xam ne kon moom lañ leen waroon a ndàmp day ci examen joxuñu leen ko ba léegi ni lée ginnaaw njàng meeg njàngale moomee waaw direct ndox maa xam ne kon mi ngi coupé waaw waaye gis nga problème ndox mi fii ci Sénégal Serigne Mbaye Thiam la maar day taali waaw waaw loolee dootuñu ko fàtteti ba ilaa yawmi diin ndax ndox ni mu doon coupé waaye Serigne Mbaye Thiam nag léegi mënul saafara jafe-jafe ndox moo mais di ko jiin président Abdoulaye Wade eh way Samba waaye Serigne Mbaye Thiam lan moo tax ba jiinu ko socialiste yi nga xam ne kon tala boo ko et puis yow Serigne Mbaye Thiam ngay seetal président Macky mi nga xam ne nekkoon na ministre hydraulique ministre ndox ak premier ministre ci jamonoy Abdoulaye Wade ba pare yow ngay tuumaal Abdoulaye Wade loolu nag Macky Sall ngay def ay jéego yoo xam ne tribune yéen kaay ne dëgg la parce que gis nga ay ñoom Mimi Touré ak ñi nga xam ne dañoo mer yëpp Macky Sall ngay liggéey pour ñu indiwaat leen Dakar Times ne ko may mooma yeggali may mooma yeggali dama ne bu dee wàllum politique la kay Macky Sall ay seef waaye gis nga gouvernement bi la dañoo laj échec lañ def de ndax ay chantier yu Macky Sall yu bëree bëri ci at yii chantier dañoo taxaw lu ëpp ñeen fukk ci ay chantier nag ana amoo ana sotraak dana fi gën a tar nag maa di taali su saane dama ne la budget 2021 bi day am baxu junni ak ñetti téeméer ak juróom benn fukk ak ñett ci ay milliards aduru maa dama ne la Abdoulaye Daouda Diallo kay dana wutiwaat yeneen 619 milliards la ilaha illallah ndax ay mbirum moratoire ak yu mel waaw am na ay bailleur yoo xam ne de duñ ko nangu de tribune yéene kaay de waaye léegi Sénégal moom suñ jafe-jafe yi kan benn pression Macky Sall day ñëw liggéey nice good fine waaye Macky fi mu nekk nii daa mel ni leneen a nekk ca booba laa la wax <laughs> waaw parce que boobu ba léegi ni la ma ngi ca politique ba rek ma ngi ca politique ba rek te yow nit ñaa ngi dee ak ndug seer gi wala njàngale mee njàngale maa ngi ni la di sukuraat mbas maa ngi ni la corona taxaw sur quotidien xam nga dindi fii ville de Dakar waaw Macky Sall day dafa mel ni dafa bëgg a xañ sénégalais wala waa Dakar seenu Babacar Joy Ba waaw nee na déclaration Omar Gueye boobee musiba mbaa ba kumba la de tegul fen Thierno Bocoum day ne kaddu yi nga xam ne moom la gouvernement bi indi ni le waaw méngoowul ak li loi bi wax laa la wax te mënuñoo fexe ba ville bi du nekk collectivité locale les éco yéene kaa ne dama ne la code bi ci boppam waaw daa weetu Omar Gueye laa la wax sur ça Omar Gueye kay daa daanu ba wëndeelu laa la wax enquête yéene kaa moo taxit mbir mi jur coow day le témoin ne xam nga lan la nit ñi doon xaar ci président bi la mooy mu jàpp detu élection locale yi ci 2021 Birahim ne waaye taxawaayu politicien bi loolu ñàkk a wéeg askan wi la ak def ay manœuvre yoo xam ni kenn mënu koo nangu nag la wax ci ab état de droit Birahim Seck ne gis nga gox yii ñi ko war a jiite askan wi ci boppam kon ñoo leen war a jox ay kàddu yu lew le soleil yéene kaa ne en mairie bu ndakaaru bi ñu bëgg a jëlee day waa ndakaaru toog léegi waaye bu doon jéeg la day dañ naan jéeg bu jar la de Khalifa Sall nit ñaa ngi ko topp de vox boobu ne juróom benn weer day ginnaaw bañ ko téyee ci kaso bi te attewuñ ko waaw waa FRAPP ak waa Y'en a marre daal dinañuy jóg nag di jàppale kon Assane Diouf mi la la ñuy daal mooy Assane Diouf nañu gën a toppatoo Assane Diouf caat bu Y'en a waaw nee na Macky Sall dafa créé ay saagakat yoo xam ni nguur gee leen daganal libération yi ne kaane de Babacar Dia scandale wu rëy ngi nii la de contrôleur des impôts domaine la waaye mbirum banditisme foncier yu bare bari sax dama ne la signature Mamboy Diaw ba day lopandoo waat nañ ko de mar di daali falsifié waaw évidence Sénégal ne nañu rapportu ARMP da koo setal nee nañ seen passation de marché yooyee waaw lépp jaar na yoon kon yees li jaarul yoon kay l'observateur nee na mooy waa mbaxeeruxu ab diine ju bees la de gars yi taxawal nañ seenug unit mar di daali astafur laa alhasan ba tribune yéene kaay ne diine joojee day ca Kolda la ne éwoy samba faux prophète waaye doom jaa ko dóor bal mu dee moom seen yonent bi maa la ko wax ndax nañ daa bëggoon a rendi kon doomam joojee def ko xarum tabaski créé nañ dem seenu kaaba <laughs> waaye ñii de ak luñ def lu mu garaaw garaaw garaaw garaaw garaaw garaaw garaaw garaaw garaaw pétrole bi tam garaaw na de mais nañ xam ne suul gaz du ko teree xeeñ te troisième mandat dañ ko fiy tere rek boo paree ma ne la alaaji tëj ginnaaw débrayage bu waa SAEMS démb muy muy jàngalekat yi ak euh, benn pàcc ci syndicat bi leen boot tey jii waa kisem su ñooy def lu mel noone euh, waa cadre unitaire des syndicats d'enseignants du moyen secondaire dinañ ci dellu soit la ñuy fayeeku mooy seen ay indemnité de participation ci bac ak BFM bi diwaanu Rufisque itam syndicat euh, syndicat des enseignants libre di Sénégal CELS originel ñoom itam woote nañu ci ñu boycotté njàng mi sabab bi moo di ñoom itam ay conditions yu dañu ko saxal Ahmed Kébé doon secrétaire général CELS original section bi Rufisque di ngeen dégg kàddoom ci biir xibaar yi. leneen ci wàllu xibaar Sénégal mun na am chance bu am solo su kës ni ci wàllu mbayam ngir xëy na du dugg ci guta gi mu war a dugg kàddu dalal xel la gu bàyyeekoo ci ab Ablaye Daouda jàlloo jaaxal ñu bëri nag ci waa Sénégal surtout ñi seen xam-xam màcc jëm ci wàllu koom ndax manque d'organisation bi am ci wàllu agriculture bi waruta mën a dal xelu gouvernement bu Sénégal. xibaaru bitim réew dinañ ci dellu seet yenn tàggat yaram bàyyi ma Anta Mbuub yéen kaay lañ koy ndax keppek Alaaji Ahmed Aidara. Voici Trafic News. Trafic salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. Mbaye Allé naka naka xibaaru tali bi. voilà merci beaucoup El Hadj Dione rek des lenteurs moo leen di sur la route nationale concernant ñi nga xam ne ñoo ko du côté de Rufisque sur le tronçon ralliant Diacksao vers Poste Thiaroye jaxe ko nag tabla Tivaouane foofu lay yéex na laata rek ngeen dépassé rond point bu Poste Thiaroye même situation aussi au niveau du marché Thiaroye foofu la aussi la patience s'impose surtout nag si vous venez du côté de Yeumbeul centre Sakura que bëgg a progresser ko marché bi euh, la daal jël la péage wala sax ngeen jël deux voies yi nga xam ne mu ngi leen yóbbu du côté rond complètement dégagé bu nag rond point pour ceux qui souhaitent passer par là en provenance du côté de Guinaw wala sax Fass Thiaroye ak tamit Pikine amul jafe-jafe foofu la yëpp foofu complètement dégagé bu nag da ngeen choisir donc yoonu Yaraax foofu la moom xaar leen fa dee lenteur laata rek ngeen dépassé marché central au Passo Elage salaamaaleykum démb waa SAEMS SAEMS mooy syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire ñoo amaloon benn grève la ñu doon sàkk mooy ñu fay leen seen euh, indemnité ci baccalauréat ak BFM bi ñu participé woon tey jii waa CUSEMS lay doon muy cadre unitaire des syndicats d'enseignants du moyen secondaire ñoom itam tey jii ci suba daal ñu yëglu banque seen loxo as ndiir ngir fàttali gouvernement bi seen i ay wareef waaye buñ ci génnee suba ak jàmm ci àllarba ji moom euh, grève totale la ñuy def ngir yëglu. la ñuy demandé mooy seen ay sañ-sañ ndax dañu leen a liggéeyloo kon faaw ñu fay leen. ci diwaanu Rufisque syndicat des enseignants libre du Sénégal originel muy SELS euh, ñoom itam daañu boycotté enseignement bi. ni ka sabab mooy foofee ci boobu le département dañoo gis ni kat se am na ci ñoo xam ne sax ñu leen seeni ay salaire toujours day yeex ñëw lool boole ci itam yeneen ci jafe-jafe yu moom la ñuy jànkuwanteel ba tax ñu daal di fàttali kilifa yi. li war lu ante seen digganteeg ñoom Ahmed Kébé secrétaire général CELS original section bu Rufisque ñu teewlu ko. jàngalekat yi nga xam ne ñoom la tuddee corps MSA ñuy maître yi. au niveau de IEF Rufisque commune jotuñu seen salaire bi ñu jotee information bi nag dem nañu jege suñu autorité locale yi. IEF mais sessionnaire bi ci boppam daf ñu xamal ne ñoom lépp leen waroon def nañ ko problème bi niveau central. ñuy demander gouvernement Sénégal di ko wax ne ko respect bu mu jox coalition Mburok problème salaire jàngalekat yi nga xam ne nag ñoom dañoo amal njëriñ population te li ëpp ci ñoom di ay contractuel loolu dafa war a jeex ñun nag nouveau de Rufisque ñi ngi demandé bépp jàngalekat boo xam ne yaa ngi situation bi nga toog sa kër bu fas xànc ak morom ma tànk jotoo sa salaire ci diwaanu Marsassoum ñu nekkoon ay anciens ci collège bu euh, enseignement moyen secondaire foofee ci lycée ba ñoom nag ñoo ñëw ngir dimbali boobu la établissement ci Tabourban ak itam la fa ne ci ay classes abri provisoire muy euh, ak jéegu gu am solo gu ñu ubbi bunt yi itam ngir woo képp ku ci mën a xemmeem jubluwaay bi mooy fexe ba jàngalekat yeeg seen i élèves nekk ci ay conditions yu baax ngir ñu mën a def ay résultats yu baax. Ibrahima Diallo. collège d'enseignement moyen bu Marsassoum bu ñu def ab lycée jot na ay matériel didactique ak ay équipement ci wàllu tàggatu yaram ci kuréel bu ëmb ay ndongo daara ak ay jàngalekat ñu mus a jaar ci établissement scolaire bi lee Salif Diop mooy seen njiit. donc dañu andi ay matériel didactique ay livres. ànd nañ si aussi ay chaise pour que salle des profs l'école ñu mën a am équipement joxe nañ aussi jeu de maillot joxe nañ aussi ay ballon de football joxe nañ ay poids pour ci e e, EPS lance poids et cetera ñëwoon président ndaje bile Ousmane Cissé deuxième adjoint au maire bu Marsassoum nekk tam directeur CAOSP bu Sédhiou ñaax na association bile mu def tam ay jéego ci wàññi néegu sàkket bari lool ci l'école bile. xale yi ci condition ñiy jàng ni condition la boo xaman boo xamante ne ñu ngi koy ñaawlu. loolu ñu ngi ci interpellé association bi. mais ku nekk ak fi mënta nekk. foo mën a am relation rek. nga mën a dawal relation boobu. fenk suñu lycée mu mën a changé. loolu tamit warul nekk prétexte. pour que xale yi bañ a jàng. gannaaw ay salle de classe yu mu soxla ñu tabaxal ko ci lycée bile kii di Alioune Ba nekk proviseur bi mu ngi xaarandi tam ñu gën koo gunge ci wàllu ay tablement banc nekk tam lu tumranke ci lycée bile Sédhiou Ibrahima Diallo Zik FM. maa ngi lay jaajëfal Ibrahima Diallo dafa am ay lotissement yu ndam si yàlla sa maître Mbaye Jacques Diop defoon bi mu nekkee maire Rufisque ñu koy wax Sérigé waaye boobu le lotissement dañu dakkaloon ni bu fa kenn tabax ndax daa amoon coow. ginnaaw bi ñu gisaat ñu am autorisation de construire di fa tabax loolee mooy li tax ñeneen ñi fa amoon ay dëkkuwaay te amuñu autorisation ni dafa am ay discrimination ba tax ñu yuuxi scandale nii lii dey musiba la ci wate tax genn wet Cheikh Ahmed Tidiane Seck ñii di attributaire yu série G bu Rufisque 2 ñoom yëkkatiwaat seen i kàddu coow li yàggoon lool ñaar fukki at ak ñeent ba nii amul sax lu ca saafara dossier ba sax am leneen lu ca yees Daouda Diène jiite cellule communication bu association des attributaires bu série G. le préfet naka ngay interdire ay nit bu ñu tabax seen kër seen i ci kaw loolu le de 2017 aujourd'hui et le octobre un certain Mamadou Dia ñu jox ko Sofername une autorisation de construire yooyu sax daal di jaare ci occasion bi daal di ŋàññ la nga xam ne moom la ñu duppee ak sikki sàkk goo xamante ne jëm ci njaayub lii di espace vert yi ak yeneen i béréb ya nga xam ne dañ fa war a sax dalal ay infrastructure yu ñëpp bokk. mais espace vert bu ñu dem ba di ko jaay di ko kii foofu dañuy waxal le maire monsieur Al c'est monsieur Albert Ndoye espace vert CDG yi c'est intouchable lépp le poste de santé am na ñu fa tabax ñu fa ñu fa tabax doon war nañu wax ak ñoom. ci place u assemblée générale bu ñu bëggoon a jëmal te préfet bu département bi aaye woon ko ñi nga xam ne nag ñoo jotoon ci suuf yooyee ci lotissement ndam si yàlla si maître Mbaye Jacques Diop daal di woon ci atum 1996 a gënal sax ñu daal amal benn jàkkaarloo ak way taskatu xabaar yi Cheikh Ahmed Tidiane Seck Tëngéej Sénégal mun na am chance génn ci jafe-jafe ki mënoon a songu càkk ndóol ci atum 2021 te loolee dañ ciy dundee yaakaaru euh, campagne agricole bu baax kaddu ko Abdoulaye Daouda Diallo ministre bi lu jëm ci wàllu budget ci gouvernement bu Sénégal mun na ci am yaakaar yaakaarub euh, croissance positive ba euh, Fatou Mbaye Diop. ci juin 2020 ak ginnaaw ba nga xam ne nag Covid 19 bi indi woon na ay jafe-jafe yu metti ci koom-koomu Sénégal ñu doon wax ne ah, boo mootul dina am ab wàññeeku ci lu jëm ci wàllu croissance bi te loolee bu amee dina metti loolu ci Sénégal waaye mu mel ni ne eh, tiit la ñu gën a def ak am lu metti ndax nag jëwriñ ji yor wàllu budget bi eh, di wax ne Sénégal ah, boo mootul nag am na chance rek ah, daal di fexe ba romb boobu lee te sunu réew dina sax yegg ci croissance boo xam ne bu am solo la dem ba ci téeméer boo jël ñaar daal ci wàllu pourcentage bi les nouvelles lu ko indi euh, jëwriñ ju yor wàllu budget di Abdoulaye Daouda jàll di xamle ne li jëm ci wàllu mbay mi moo fi jaar ndax nag la ñuy xaarandi ci li jëm nag ci li nga xam ne moom la ñu bay at mi doon na loo xam ne nag mën na sauver Sénégal ba du daal di dugg euh, ci boobu boobule maanaam wàññeeku ci wàllu croissance am même bu fekkee ne nag ay jafe-jafe yu metti euh, jaar na fi ak Covid 19 bi lii di mbay mi fexe ne rek ba daal di nëbb yenn tur yi ngir Sénégal mën a du dugg ci situation boobule. xaddu yooyu bàyyeeku ci ministre bi lu jëm ci wàllu budget nag ci gouvernement bu Sénégal dalul dara xelu ki nga xam ni moo di Mor Gassama doon économiste ndax euh, mbay mi amul sax organisation bu mën a permettre gouvernement ngir mu séntu ci ak suqaliku te it nag bari na fu ñu xayma woon ci récolte ci wàllu mbay te safaan baa fa nekk ak yeneen ci ay jafe-jafe ak manque d'organisation bi nekk ci biir secteur bi ñu teewlu explication yu Mor Gassama ci téléphone Fatou Lay Mbaye Diop. croissance boo ñaari chiffre bu deux pour cent ndax euh, nawet bi tane na ba baax na sax la ñu wax xam naa ne dañuy prévision la yoo xamante ba yu rafet jot na lool dafa quand même bu ñu fàtte ne dëkk secteur informel bi euh, ndimbal ba mu doon xaar en tout cas gis ko ba léegi mbay mi baax na d'accord mais foofu aussi productivité bi maanaam dafa faible trop te en même temps pourtant autorité dañoo tàmmal dañuy amasser cycle yoo xamante bii du bokk ak yi am voilà daaw def nañ ñu ko mbayam ceeb mi def nañu ko aussi ci mbayam gerte mi te xam naa ne ren bi aussi xam naa ne bu ñu waxee tamit faw ñu ñu jël ko avec beaucoup de précaution ndax njiitu réew bu Sénégal dana delloo siwaat poste premier ministre bi nga xam ni ñeenti fan ci weeru mai 2019 la ñu ko supprimé woon te bu ñu seetee lu bëree ngi sooxee teyit it nag euh, képp ku jóg sa contact direct njiit réew mi lay doon day mujj daanaka présidence dootul am ab ñàkk. ba tax na analyste politique bi di taskatu xibaar euh, Babacar Thion jàpp ni premier ministre moom mënut a ñàkk ci Sénégal bu fekkee njiit réew mi bëgg naa woyfal boppal yan bi ngir mën a occupé wu ci yeneen yu ëpp solo ñu teew teewlu ko. Euh, bu dee fast track la euh, mën nañoo gis loolu fast track mooy que ni président Macky Sall wax ak ministre bi est ce que président am na temps boobu ba nga xam ni kat moom mooy gérer directement dossier yi loolu c' est un problème il nga tax nañu changer lu mel ni assemblée nationale nga xam ni premier ministre doon na dem di wax ak sénégalais yi à travers les députés léegi nag gis nga ministre yi ñooy def seen conférence de presse bu fekkoon premier ministre ngi fi dootul demee noonu donc je crois que même gaawaay parce que ne dala koy mëneel à bien donc mën nañoo njort ni kat loo xam ne lu waroon a am la Euh, donc moo tax du ñu bett bu fekkee président Macky Sall indiwaat na. Euh, tey jii am na ndaje boo xam ne nee nañu waa Sénégal ak waa CORED ñoo koy def jubluwaay bi mooy nee nañu dañoo nemmeeku ay njuumte yi faral di am ci média yi te euh, ak yi ci yi ci yokk ci wàllu réseaux sociaux yi ak yooyee bu ñu noppee itam def ay ndaje ci rédaction yi xëy na daañu am luñ ciy waxtaane lu jëm ci wàllu métier boobee ci seen xëy na mu nekk ndaje bu am solo. ñu wax ci wàllu international conflit bi am ca Éthiopie nga xam ni jamono ji euh, fastana sikki mu conseil de sécurité bu Nations Unies ak conseil de sécurité euh, bi euh, ak ak réew moomee nga xamante ni bii jamono ji mooy Éthiopie bari na lool ay jafe-jafe yoo xam ne am na fa ci wàllu guerre ak yooyee ci diggante ay xeet pression bi nga xam ne tegu na ci kaw Addis baa nag sabab na fa fas yéene waxtaan tey sàkku itam mu xool nu mu mën a def ba jubbanti xeexoo googe di am ci diggantey xeet te ñenn duñu ci doon ay victimes lu dul askan wi yëf yi sawet ci seen bopp ñu bari ci ñoom di dem di euh, làqatu ji daanaka loolee doy na waar. ci Algérie benn benn néew la ñu gis néew boo xamante ni bii euh, ca marine ba la bokk euh, maanaam ca armee ba dañ ko repêché loolee nga am ni ki démb protection civile ñoo def lu mel noonu fekk na doon dañ ko seet ndax dañ ko gisul nag daa jékkoon daal di réer ci benn bateau de pêche euh, ci la ñu nekk na di ko seet seet ko ba mujj nañ ko gis nag waaye bateau ba sax nag daa suux ñu mujj nag continuer ci wàllu recherche yi ñu doon def. ngir mën a gis yeneen i corps yi nekkoon ci euh, bato boo bële nga xam ni bato bu marine ba la foofee ci Algérie lu mooy loolee euh, kii di Alassane Dramane Ouattara daal di ne giñ ni ki démb ca kanam askan wa giñ gu da leen di wax na muy jiite réew ma tubaab di ko prêter serment ci teewaayu ay nattangoom yu bëri day njiitu réew yoo xam ni fekk ji woon nañu ko bokk na ci suñu bos fukki simila ak juróom moo toftalu ci juróom-ñetti waxtu. Voici Trafic News. alors euh, Baye Allé nag situation tali bi. voilà merci beaucoup El rek jaax nañu au niveau du rond-point Lambatt Fall jafe-jafe malgré c'est un lieu de convergence de plusieurs ngeen fa jaaxee daal di wéy seen bu ngeen ko sur le deux voie de complètement dégagé vers rond-point Seras ginnaaw rond-point Seras nag des complications mu leen di xaar sur la route nationale pour ñi nga xam ne ñoo bëgg a jaaxal point Cambérène foofu la dafa saturé complètement ay jafe-jafe neen vous allez perdre là-bas beaucoup de temps et du carburant rawatina ñi nga xam ne nii ñoo béy ko le aussi xaar leen donc des lenteurs sur le péage dooree ko nag Padois Actu Sport. Baye Mante Mbuub la ñuy àndal ci xibaaru sport salaamaaleykum. maaleykum salaam Aj Mahamadou man sax Diop. d' Afrique ci wàllu bu Sénégal ñu ngi koy xaar ca Madagascar tey. waaw ñoom nag ni ki démb la ñu jógee fii ci Sénégal ngir wëtali foofu ca Madagascar ngir nag mun a bokk lu jëm ci championnat d' Afrique judo yu ñu fas yéene ki ñaar fukki fan ak juróom jàpp ñaar fukki fan ci weeram décembre gi ñu nekk foofu ca palais des sports bu Mahama Massina nekk ca Madagascar waaye nag jàppal nekk di Manick Ndiaye nekk ci 100 kilos yi ak Abdourahmane Diaw ci mooy Dakar 90 kilos yi ñoom nag waxtu yi ñoom ñoo ngi ca Madagascar depuis dimanche bu ñu sukkandikoo ci kàddu kii di président fédération sénégalaise bu judo ak discipline euh, assimilée di Babacar Makhtar Wade moom mi tamit muy xamle nag ni Sénégal seen nag mbébét ci boobu championnat d'Afrique du lenn lu dul nag ñu def seen kéem kattan bu gën a ngir nag am point yi ñu mën a permettre ñu mën a nag mottali ngir bokk ca euh, Jeux olympiques ñu fas yéene amal ci nag euh, ci plan africain euh, Sénégal nag bëgg nag décrocher lu mu néew néew ñaari titres continentaux ak tamit benn titre ci podium individuel bi di fàttali nag ni ci les championnats d'Afrique nag seetlu nañu nag euh, équipe yi ci fas yéene participer am na nag ab yokkute guñ ci nemmeeku wuteeg atuma 2017 waaye nag lu jëm ci nombre de combattants yi am na nag ab wàññi wàññi wàññuke luñ ci nemmeeku ndaxte mbas mi di Covid 19 moom moo ko waral. ñu ci wàllu football ak petite catégorie internationale au Sénégal bi Pape Aliou Ndiaye lance na Jolof Olympique Club. waaw ah, Jolof Olympique Club pour la euh, nag euh, lancer foofu ci Jolof li mu ci bëgg rek mooy fexe nag ba ndaw yi nga xam ne ñoo nekk foofu ci Jolof euh, te nag football la ñor leen dëgg-dëgg ñu nag am foo xam ne dañuy fa nag mën a wane seen bopp bu baax a baax bu ñu sukkandikoo ci nag ki nga xam ne mooy seen manager général di Pape. Pape Sangoule Ndiaye ci nag waxtaan gu mu sekk ak kii di Mass Ndiaye foofu ci Jolof. jàppale jeune talent yi ñuy football moo tax doomu Jolof bii di l'international Pape Aliou Ndiaye sos ab centre de football duppee ko Jolof Olympique Club lii nar a ñoŋal xarante doomu Jolof yi manager général Pape Sangoule Ndiaye. li ko football mooy rek la bëggoon delloo rakkam yi nga xamante ne nekk ci terroiru Jolof bi objectif bi moom chaque jour lu ñuy def ñu a màgg chaque jour di ko def a baaxee objectif bi je pense année bi yéeg la yéeg ci palier supérieur incha allah moom muy ñaax doomu jolof yi ñu dugal si seen loxo waaw doomu jolof yi fu ñu nekk maa ngi leen di woo xam nga di leen wax seen doom Pape Alioune Ndiaye centre bu leen promettre def na ko léegi ñu ngi woo ñëpp ñu ñëw andi seen doole ak seen xam-xam voilà pour ñu yóbbu jolof olympique club fu sori c'est que dañu defagul petite catégorie bi rek mais ñu ngi xalaat centre bi baax lool si xale yi dina tax ñu détecter jeune talent yi Linguère Zik FM Mass Ndiaye maa ngi lay jaajëfal Mass Ndiaye euh, ñu wax ci euh, Ligue des champions. waaw Ligue euh, non championnat européen championnat européen. xam nga Ligue des champions démb la ñu amal tirage au bi. waaye nag tey jii tamit championnat européen yi moom yu si bëri nag dina tàmbaliwaat fukk ak ñetteelu bëccëg bi foofu ca Angleterre 18h Wolverhampton mooy dalal ñii di waa Chelsea bu Edouard Mendy 20h nag ci diggante Manchester City la doon ak équipe bi di West Bromwich Albion fukk ak ñaareelu bëccëg foofu ca Allemagne ci bi 17h30 Francfort ak lay doon. 19h30 Stuttgart dina laale ak ñi di waa Union Berlin ci boobu lay waxtu sax si la Hertha Berlin di dalal ñi di waa Mayence. Werder bu Brême moom Dortmund la fas yéene laaleel euh, Espagne seen fukk ak euh, ñeenteelu bëccëg tey jële bu avancé bi nag vingt une heures Real Madrid mooy dalal ñi di waa Bilbao ni ki ëllëg nag ci bu vingt heures jotee ci la FC Barcelone di laale ak Real bu Sociedad ci Serie A ci Italie moom jàppale nag seen fukk ak ñaareelu bëccëg tey ñaari jogante rek moo ci fas yéene am. 17h30 Udinese mooy dalal ñii di waa Crotone 19h45 ci diggante nag Benevento ak Lazio bu Rome lay doon kon El Hadj moo fi gënoon fës jëm ci wàllum xibaaru tàggat yaram. yaa ngi lay jaajëfal Baye Mantoum bu ñu xuus ci xibaar yi. Master Office gën ci mobilier de bureau mobilier de maison.